الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله فإن نصيب الإنسان من الدنيا أمره فإن, أس فإن أحسن استغلاله فيما ينفعه في الدار القرار ربحت تجارته وإن أساء استغلال في المعاصي والسيئات حتى لقي الله على تلك الخاتمة السيئة فهو من الخاسرين وكم حسرة تحت التراب والعاقل من حاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله وخاف من ذنوبه قبل أن تكون سببا في هلاكه قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائدة تحت جبل يخاف أن يقع عليه mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokki julit yi ginnaaw loolu sunu xutba mooy xusnul xaatama mooy jaamu yàlla bi jullit bi ar naa góorgóorlu ci dundam ba buy daje ji ak boroomam ëllëg mu génn ci àdduna génnuwaay bu rafet ginnaaw bakkanam suy faatu mu dem ci yàlla ci anawin bu rafet mbokki jullit yi yal na nu yàlla may mujj bu rafet doomu aadama dundam ci àdduna yépp ak ay yëngatoom ci lim ko war a def mooy lu rafet lu yàlla gërëm loo xam ne ëllëg yowmal qiyaam bu demee àllaaxira dana fa am bénéfice commerce bu mu doon liggéey ci àdduna dana tonu fële ci àllaaxira waaye doomu aadama boobu bu reppee ba yëngatu yi mu doon yëngatu ci àdduna yépp mu ñaawal ko def ko ci ay bakkaar ba mu faatu ci àdduna ci mujj gu ñaaw mu dajeeg boroomam ni àddunaam yàqoo noonu la àllaaxiraam di yàqoo mbokk yi ci yàlla ñaata ñoo perte tey te ñu ngi ci biir bàmmeel tëdd ñoo xam ne tey ku leen fekkoon ci bàmmeel yi ne lan ngeen mébét ñu ne tey ku ma delloowaatoon tey àdduna waaye mu nekk lu mënatul a nekk ku ku génn àdduna doo fi ñëwaat képp ku dem alaxira dem ci anawin bu rafetul sa alaxira yàqu na looloo tax ku am xel mooy ku réglé boppam balaa yàlla di ko réglé wal aqilu man xaasaba nafsa qabla an yuxaasibahu allah ki am xel ki bëgg bañ a perte àddunaam ki nga xam ne ëllëg dafa bëgg bu dajeeg yàlla sunu borom subhanahu wa taala teral ko dugal ko aljanna mooy ki réglé boppam balaa muy dem alaxira ki am xel mooy ki ragal ay bakkaaram balaa bakkaar yi di ko alak balaa bakkaar yi di ko dugal ci yoon woo xam ne dootu ci mën a génn kookoy ki am xel jëlee nañ kenn ci ndongo yonent bi alayhi salaatu wassalaam ku tudd ibnu mas'ud ibnu mas'ud ne yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ab jullit day toog di seen ay bàkkaaram mel ne ay montagne yu bëgg a daanu ci kawam waaye moom jullit boobu seen ay bàkkaaram mel ne ci moom ay montagne mu ragal montagne yi bàkkaar yooyu dal ci kawam mooy koo xam ne du xeeb bàkkaar comme ñun tey nun koy xeebee toll nañ ci xeeb bàkkaar léeg-léeg julli jot nga gis nit ki toog bañ a julli boo ko waxee mu ne la après benn jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi jot nga gis waa ji di ko yéexe waxuma sax ki ko bañ a def toog di ko yéexe yéexe julli rek bàkkaar bi nga xam ne moo ci nekk saa yu ñu xëyee danañ jàng ab aaya ci alquran yàlla mu ne ñooñu ma dugal safara ay jullikat lañ fa waylun lil musallin xurwee ngeen di gis ci safara nga xam ne buñ ci sànnee nit balaa muy laal suuf ndax xóotaayam dina am soixante-dix ans ndax xóot gi mu xóot yàlla nee na jullikat ya laa fay yóbbu kon ñooñu lan lañ def ba yàlla di leen yóbbu safara te ñu ngi julli mooy dañ koy yéexe wala ñu koy julli ci anam bu normalul wala julli gee baaxul ñun nag jàpp na ne buñ jullee rek affaire yi garaawul dem nañ juma démb démb vendredi dem naa juma vendredi bu nekk dinaa dem mosquée loolu la waa ji di tiitaroo xoolul julli yi ndax normal na xoolul ndax mu ngi koy respecté xoolul ndax njàng mi wér na xoolul rukoo yi xoolul sujood yi xoolul heure bi mu koy def ndax normal na moom yoonam nekk en tout cas maa ngi koy def quoi chaque jour ma dóor ko mu daanu te yàlla nee na ñiy julli yóbbu naa leen safara fa waylun lil musallin ñu ne ñan mu ne alladina hum an salaatihim saahun yaa na bu ñuy julli dañoo sàggane julli gi dañuy julli après waxtu xoolal loolu Sénégal ñaata nit ñooy julli après waxtu ñaata nit ñooy julli ci waxtu waaye julli gi baaxut julli goo xam ne njàng mi wérut ruko yi wérut sujood yi wérut sëlmal bi wérut ak yeneen ya ca aju kon ab jaamu yàlla dafa war a góor góorlu kemtalaayal kattanam ba dund àdduna gi muy dund mu am fi mujj gu rafet wa kam saxsun asarra ala sagir fa allafaha wa haanat alay wa lam yufakkir yawman fi azamati man asa ñaata ci ñun ñaata ay nit ñoo nuur ci ay bàkkaar di ko ndawal naan bàkkaar bu ndaw la xalaatuñu li ñuy def xalaatuñu ki ñuy tooñ musuñoo xalaat benn bis ci màggaayu bàkkaar ci ki ñuy tooñ kan la déedéet ñoom seen yoon bàkkaar bu ndaw laa def rek mbokk yi juma su feesatee kenn amul droit ñëw di traverser nit ñi di toog juma su feesatee kenn amul droit ñëw di traverser doomu aadama yi pour am place yonent bi nee na képp ku fekk nit ñi toog nga jéggate leen am nga bakkaar soo ñëwee rek toogal fi sàppe bi mujj su nit ñi jógee bu ñu amee place nga avancé mais ñëw di wax nit ñi pousse leen amoo ci droit même bu fekkee ay xale lañ wala di jëggat nit ñi ku jëggat nit ñi rek am nga bakkaar nañ bàyyi xel ci loolu wakki jullit yi kenn ci nekk ci ñun na xool ki muy tooñ bul xool li nga def mais xoolal ki nga tooñ kan la ci nit ordinaire yi boo ci dajoon kenn ci mbedd yi nga saaga ko ak nga saaga procureur du benn de pourtant ñoom ñaar nit lañu waaye ndomba tànk bi kii am ak bi kii am du benn kële mën nga cee génn waaye ku mujj kii mën nga cee des pourtant ñoom ñaar ñëpp ay mbindeef lañu amma rombal ñooñu ñëpp nag léegi nga tooñ yàlla kon bu kenn di xeebati tooñ yàlla te li gën a doy waar mën ngaa tooñ yàlla ci sa mujjantalu dund nga dee ci bàkkaar boobu nga mujjee def ñun ñëpp dañuy jàng histoire u iblis iblis li muy tekk ci arab mooy borom mujj gu bon koo xam ne fi mu mujje baaxul pourtant jàng nañ commencement wu iblis histoire am dañoo ne iblis foo natt sebre lii mooy sebre foo ko natt ci kaw suuf si iblis julli na ko borom bi takkaloon ko garaat sax muy ànd ak malaaka yi kaana minal malaika du malaaka nag du malaika xasanul basri nee na lam yakun iblis qattun minal malaika du masul nekk malaayika Hasanul Basri nee na Iblis mësta nekk malaaka waaye da àndoon ak ñoom parce que yàlla moo yéegaloon garaatam mais keroog bi mu moyee yàlla ci mujjantalu bàkkaar bi mu def keroog la yàqule keroog la ko yàlla dàq génne ko aljanna benn bàkkaar kese la Iblis def benn daal di yàqule benn benn bi mooy lan su jootal leen aadama iblis daa di lànk aba wastakbara yàlla nee na dafa lànk daa di rëy ñaar la boole aba mooy bañ na ndigalal yàlla yemul ci bañ ndigal yàlla wastakbara mu rëy rëylu yàlla nee na loolu moo ko yóbbu ci yéeféer yi wa kaana min alkafirin mu mujj nekk ci ay yéeféer yéeféer aadama ñaata bàkkaar la def moom tamit benn yàlla dàq ko biir aljanna benn bi mooy lan wala taqraba hadihi sajara fa takuna min alzalimin bu leen jege garab gi yéen ñaar kon ngeen bokk ci ñi mooy yàlla ñoom ñaar ñu daal di dem jege garab ga yàlla daal di leen di dàq ndeysaan ci yërmandeem loolu moo tax cheikh abdul aziz bun baaz rahimahullah mu ne bàkkaar yi gën a rëy ci bàkkaar yi mooy def yaramu neen mooy wuññi say awra def ko ci biti mu ne képp ku ngeen gis mu wuññi awraam génne ko ci biti yàlla def koo mere ndax aadama ak awa bi leen yàlla mere daa wuññi seeni awra ca biir aljanna aadama ak awa bi leen yàlla meree daf leen a futti seen yi awra di feeñ mu ne koo gis awraam feeñ ci biti yàlla da koo mere saa yu yokkee loolu mooy merum yàlla mu ngi koy gën a yokk allahu akbar xoolal ñun tey bala nuy kontaan def yaramu neen waaw tey fii nu toll nga xam ne dañ naan Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent musulman lañ yaramu jullit yëpp mu ngi ci biti ne dung te awra ku nekk xam na awra jigéen almaratu kulluha awra jigéen léppam awra la warul feeñ mais bala ñuy kontaan jigéen ñi génne seeni awra yenn saa sa nga gis ku ne sa daj fay kontaan ci loolu ndaw si génne awraam kontaan ci kenn ci ñun mu ngi nii mënta xëy journée bi ba journée bi jeex yaramam wala bëtam bi teguwul ci awra kenn mënu ko ci ñun te li muy tekki mooy ku yàlla mere rek mooy génne awraam aadama ak awa ba leen yàlla meree la seen awra feeñ bi seen awra feeñeel fan lañ mujj jàpp ci garabu aljanna yi di teg ci seen kanam ndeysaan allahu akbar soo demee ci bible bi ñu ne aadama ak awa bi ñu lekkee garab bi seen awra feeñ dañoo nëbbatu yàlla yàlla wàcc aljanna di leen wër naan aadama ay na anta nga ñëw ci alquran yàlla ne aadama ak awa ba ñu lekkee garab ga seen awra feeñ wa naadaahuma rabbuhuma seen borom daf leen a woo direct parce que nuñ koy nëbbatoo mooy borom asamaan ak suuf direct la leen yàlla woo ne leen ndax garab gi terewuma leen ko woon waxoon naa leen bu leen ko jege bible moom dane dañoo nëbbutu yàlla di leen wër yàlla borom asamaan ak suuf nu muy wéree am mbindeef bu mu bind yàlla dane def leen a woo alquran moo wax loolu wa naadaahuma rabbuhuma yàlla da leen a woo direct ne leen tere woon naa leen garab gi ngeen lekk ko maadaama lekk ngeen ko nag dama leen di dàq ci bitti te benn bàkkaar lañ def moo tax bàkkaar wóorul ndax xamoo ci ngay dee moo tax jarul nga koy xeeb naa ko def ma tuub wóorul ndax boo ci deewee ci ngay dekk yubu as kullu abdin ala ma maata alayhi fa kaana sababan fi su'il xaatima bëri na ku def bàkkaar bàkkaar boobu moo ko indil mujj gu bon anas ibnu malik radiallahu anhu nee na innakum la taamaluun amalan hiya adaqu fi ayunikum min ashaar kunna naudduha fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min almubiqat anas kenn la woon ci sahaaba yonent bi ci ay àndandoom nee na yéen a ngi nii yéen jullit yi tey anas bi muy wax li génération bi ko yonent bi bàyyee muy dund ak ñoom la joxoñ di wax du nun génération bi gën ci génération yi mooy génération yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xayru naas qarni yonent bi nee na siècle bi gën ci siècle yi mooy sama siècle ña ca tegu ña ca tegu ba keroog àddina di jeex anas nee na yéen sahaaba yi yéen a ngi ni tey yéen a ngi def ay mbir yoo xam ne moo gën a sew wëñ kawar moo gën a sew kawar ñun ci jamono yonent bi loolu ngeen di def yéen tey te mu tuuti tol ne kawar ngeen xeeb ko ñun ci jamono yonent bi ay bakkaar yu ngande lañ ko doon compter tey yéen ngeen koy def de bañ koo faale mooy tëdd di nelaw julli jot nga bañ a jóg julli ci bañ a dem jàkk bañ a téye salaam miñ di jëw ah ñàkk a toppatoo sa diine tey loolu ci julli du dara julli jot na waajaa ngi nelaw non loolu du dara wala waajaa ngi toog di ataaya yow loo teree julli ji moo damay ataaya après bu ma paree rek ñu ne garaawul amul problème wala jullit boo xamante ne semaine bu nekk benn yoon lay dem jàkk wala bañ a bañ a dem fajar jàkk bañ a yeewu fajar julli ci mbooloo xoolal tey ñun fi ñu ko teg du dara fekk anas nee na kunna na udduha inda rasul min al mubiqaat ci jamono yonent bi ñàkk a dem jàkka ci bàkkaar yu ngand yi la woon ndax ñun niñ doon xamee naafiq yi mooy ñi dul daan dem jàkk allahu akbar wa qad nabbaha allahu fi kitaabi jamii almuminina ila ahamiyati husni alxaatima yàlla soññ nañu ci alquran soññ jaamam yi ci importance mujj gu rafet fa qaala taala ya ayuha alladina amanu ittaqu llah xaqa tuqaatih wala tamuutunna illa wa antum muslimun wa qaala taala wacbud rabbak xatta yaatiyaka alyaqin yàlla wax na ci alquran yéen way gëm yàlla yi ngalla waay ragal leen yàlla dëggi dëggi ragal yàlla bu leen dee dajeeg yàlla lu dul ay jullit ngeen mooy foo nekk nekkal jullit loolu moo tax xubayb doon wax ne ana la ubaali hiina uqtalu musliman jamono buñ may rey ma nekk jullit faale wuñ ma faale wu ma luñ may reyee almuhim bi may dee naa nekk jullit bul faale dëkk boo deewee bul faale place boo dee bul faale fuñ la suul almuhim bi ngay dee nekkal jullit loolu moo am importance bi ngay dee na nga nekk jullit waaw wallahi boo deewee woon réew mi gën a yées ci àdduna bi gën a bon fekk ab jullit nga ñu suul la fa dara du la tere dugg àjjana moo tax léeg-léeg nga gis fii ñu jël néew di ko toxal di am ku dee géejawaay ñu yenu ko uñ jëm yàlla mi nekk fii moo nekk foofu su fekkee daawul jaamu yàlla wallahi bu ñu demee foofu tamit du baax amul fenn ku ñuy suul nit mu texe lu dul nit kooku ñu suul moo doon jaamu yàlla wallahi bu ñu dee woon fii ñu dugal ko ci boyin yóbbu ko ba ci biir kaaba ga da ko fa ràpp ñibbi fekk daawul jaamu yàlla ci biir kaaba gi la ko yàlla di fekk mbugal ko doomu aadama bu fekkee dafa bëgg am assurance yàlla du ko mbugal mooy na jaamu yàlla waaye nañ ko suuli fee fuñ ko suul diw nee na am na assurance giñ naa ci nangam yooyu ay wax kese la ki gën a tedd ci nit ñi muy Muhammad moo fakk ay bàmmeel moo ñëw fekk terrain mu def ko ay bàmmeel tudde ko baqi nit dee moom yonent boobu mu sang ko sang ko jullee ko indi ko ci armeel yi dugg jël peel gas ba mu xóot dugg ci biir ne jox leen ma ko ñu jox ko ko mu dugal suul mu bëgg a ñaan yàlla mu ne ko bul ñaan waa ji safara la jëm bul ñaan de astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum lan yaghfir allahu lahum boo ñaanee wala nga bañ a ñaanit yàlla du ko baal su ngeen demee ci suratu tawba be aaya bi yàlla nga ko wax ne ci ban saar astaghfir lahum ci suratu munafiqin su ngeen demee tawba yàlla lan la wax dafa yokk aaya ba foofu ne ko boo ñaanoon juróom-ñaar fukki yoon nit ku mel ni duma ko baal te deuxième fois maa ngi lay mettre en garde yow yonent bi ku mel ni bu deewatee bul taxaw ci bàmmeelam waxuma laa nga naan da ngay ñaan kan lañ doon mettre garde yonent yàlla Muhammad kan la yàlla doon def loo attention Muhammad kon nag loolu dong doy na misaal feneen fu ñu suul nit fekk waajooju xamul woon yàlla wallahi kenn du tax bàmmeel du ko tanc kenn du tax kenn mënul tere yàlla mbugal ko waaye fu ñu mën a suul nit fekk mu ngi doon jaamu yàlla wallahi dina am taraanga adduna ak àllaaxira parce que malaaka yi ñoo koy atte ñoo fa nekk biir bàmmeel bàmmeel xamul lu dul ku doon jaamu yàlla bàmmeel xamul lu dul kuy jaamu yàlla loolu rek la bàmmeel xam waaye keneen ku dul loolu ku la neex na la jur ku la neex laa wax na la jur wutal papa yonent yonent yi am nañu ay doom yu nekk safara jàngeen histoire nu lu tax chaque jour bu ñuy wax alquran la ñuy indi parce que alquran mooy référence bi leneen lu alquran dëggalul ku ko dëggal da ngay nax sa bopp ay caaxaan la ay yonent seeni soxnaa ngi safara ay yonent seeni doom a ngi safara ay yonent seeni baay a ngi safara te ñoom yonent yooyu mënaluñu ñooñ seen mbokk yi dara te yonent yi ñoo mën ci nit ñi ñoo ci gën a màgg kon keneen ku dul yonent bu yeboo ñu noppi jaamu ji yàlla bàyyi fo bàyyi caaxaan amul fu nit di faatoo laa wax ñu jagat jagatee la sëf ci oto sànni ji ci nangam def am nañ assurance amuñu dara xam nga loolu ñu def lan lañ am coono dong lañ ci jëlee coono coono kese lañ ci jëlee wallahi ndax yàlla nee na ab néew kenn waru ko toxal ku nekk fi nga dee lan la war a suul waaw lu ñuy daw lu ñuy daw di uti ndimbal xalaa waa ji wóolul boppam loolooy wax ji nit dee ñu jël di ko suuli fenn mooy wóoluwuñ ko moom waa ji wóolu wuñu lim doon def su fekkee wóolu nañ ko acca nañ gas suul ñu xool léegi ñu fekk ko aljanna waaye wóolu wuñ suñu bopp looloo tax ku dee ñu jagat jagati ne dañuy wëri ndimbal fekk xamuñu ndimbal mu ngi ci jaamu yàlla rek ndimbal assurance bi wóor mooy mu ngi ci jaamu yàlla su waa ji jaamoo yàlla rek fuñ ko mën a suul wallahi day texe waaye bu fekkee daawul jaamu yàlla xamul woon yàlla waaw diineem ñoru ko woon ci li ko neex la nekkoon ba mu faatu fuñ ko mën a yóbbit na yonent ba defoon waaja rek sonn bay bëgg a dee sang waaji te li gën a doy waar yamul ci sang ko moom yonent yamul ci sang ko waaye mantoom bi mu doon jiitee jumaa la sange waaji xanaa yëre yonent warul lakk Omar lank ne yonent sa yëre du sangu ci waaji mu ne ko Omar man la yàlla yónni woon wala yow mu ne ko yow la yàlla yónni mu ne bàyyil ma sang ko ndax mu am yërmande yàlla yonent bi jël mantoom sàng waa ji jullee dugg ci bàmmeel bi ñu jox ko mu jël waa ji wàcce delloo si suuf si ne dara desu lu dul ñaan yàlla ne ko bul tàllal loxo yi de bul tàllal safara la jëm sallallahu alayhi wa sallam kon kooku mooy référence bi suñ jamee noonu rek dana nu noppalu dana nu féex mbokki jullit yi yàlla nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ni ñu topp ko yàlla nu yàlla woon neen mu wërsëgal ni ñu sori ko alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala man ursila rahmatan lil alamin بصيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اخوه الايمان وان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه حتى يكون بينه وبينها الا الذراع فيسبق عليها الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها ki yàlla yónni woon ci jaam ñi nee na pour nu war a góorgóorlu pour am mujj gu rafet doomu aadama day nekk kuy jaamu yàlla sax ci jaamu yàlla guddi ak bëccëg 24 heures bi guddeeg bëccëg waa ji nekk ci di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba benn bis rek waa ji daa di dem def bakkaar rek daa di dee yonent bi nee na waajooju nga xam ne ci lu bon la mujjee yonent bi nee na noonu la waa ji di tàbbjee safara yonent bi nee na waa ji dina xëy nekk ci lu bon nekk ci lu bon dundam gi yëpp mu dem ba dernière minute mu tuub tiit tuub dellu ci yàlla mu def lu baax mu daal dee rek dugg àjjana moo tax jëf yi kenn warul xeeb jëf bi non après dinaa tuub quoi déet warul boo ko defee dee ci nag ah ñaata nit ngeen di gis ñu xëy génn seen kër waaye du ñu dellu si ci tabaski bi dafa am benn waaye bu dugg ci jàkk julli ndoog imaam ñu pare ne imaam rey na mu dem këram simmeeku ci di simmeeku ci néeg bi pour génn xar bi ndeke dee na bu yàgg dam doon simmeeku wala dee imaam nee na léegi-léegi maa ngi moom ñoo doon nuyonte ñu daal di koy delloo si dugal ko ci morgue bi fekkewul xar mi biñ koy rey waaw yàlla sunu lépp ci yàlla la nekk sunu dem ak sunu dikk sunu wax mu jeex sax ci kaddu yàlla ci ndigal yàlla la nekk moo tax looy def fexeel nga am husnul xaatama lépp loo xam ne wóoru la neex boo ko defee da ngay dee bàyyil doomu aadama dem na jàkk su jóot daa di dee doomu aadama dugg na ci oto di supporté ji làmb dee kooku ne woon day dee keroog jour làmb jooju est ce que xamoon na ne day dee bis boobu ñaata yoon ngeen dégg loolu nit toog na sax ci kanamu écran télé di seetaan làmb dee di seetaan match dee ab jour football sax nekk na ci biir terrain compétition bu ngand daa di dee ci biir terrain bi ñëpp di ko xool kooku xam ngeen ne ba muy dem wéroon na këng parce que docteur am na docteur am na lépp ah mi ngi plein forme waaye dem ndeysaan ñu santrabal mi ngi teg dënn wàcce rek daa dee allahu akbar yàlla parce que mbir yi ci loxo yàlla la nekk moo tax doomu aadama na góorgóorlu bis bu nekk mu am mujj gu rafet digganteem ak boroomam lépp lu lay dimbali ci nga am mujj gu rafet nag mooy looy def nga bàyyi ko xel waaw benn waaye dem na loué auberge di fa yóbbu xale jigéen ñi di fa yóbbu xale jigéen ñi ba bis mu yóbbu fa jigéen di seeg moom dee ci kaw jigéen gi ñu woote téléphone ndaw si daw ba max ko mu daanu ndaw si jóg ne leen ku góor ki dee na ñu jël répertoire téléphone am di woote jot kenn ne ko dafa am ku dee fii portable am lañ lay woowee mu ne ak kii de diw la ñu woo waa këram mu nekk kilifa gu mag ndeke noonu la doon def gis ngeen su xamoon ne noonu lay dee dem ba auberge dem tëngéej luwe fa auberge nekk fa jigéen daat dee kan moo ko waxoon ne di nga dee bis boobu mbokk jullit di doomu aadama dina def ay jëf yu baax yu baax comme iblis yu baax yu baax ba dernière minute nga tàbbi ci lu la yóbbu safara doomu aadama day nekk ci lu bon ba yenn saay mu def lu baax rek daal di dee daal dugg aljanna kon nan leen góorgóorlu pour ñu am mujj gu rafet ixwatal iman sunu yonente alayhi salaatu wasalaam daf ñoo soññ mu ne warada fi lxadis sahl ibnu saad alsaaidi anna rajulan min almuslimin fi ihda almaarik ma rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam ubtuliya balaan shadid fa ujiba bis fa ujiba sahaba kenn ki daan ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci yenn xare waa ji nekk jàmbaar mbooloo yéeféer yu mu song rek tëral leen sahaaba yëpp waaru ci waa ji ñëpp di ko tagg di ko naw yonent bi xool sahaaba yi ba ci waa ji ne pourtant kii ngeen di yéem dey ñu ne ah ñu yonent bi ne leen safara la jëm sahaaba yi tiit ñëpp jommi naka la waa ji melee nii naka la waa ji nekkee ci lu baax lii ba pare yonent bi di ko seedeel ne kii safara la jëm benn waay nee na ba ma déggee waxu yonent bi ma ni foog ma contrôler ko nee na soreetuma waa ji ma dend ak moom ruq bu mu dugg ma jaar yéeféer yu mu song ma topp ko ma jekki-jekki rek gis ñu daal di koy jam moom waa ji biñ ko jamee mu daanu mu buddi fett bi wala jaasi ji yëf yi metti ci moom mu tenir tenir yëf yi metti moom waa ji nan la def mu daal di samp jaaseem daat ci daanu jaaseem daat koy rey lu mu def dafa xaru mettit bi la munta muñ mu daal di gaawantu yàkkamti daal di rey boppam xoolal lu baax li mu defoon fan lan moo ko yàq mooy lii mu def nii mujj def moo yàq lu baax li kon nan leen góorgóorlu ñu bëril jëf ju baax ndax xamuñu sunu bakkan ci lan lay mujj mbokk yi bu julli jotatee bul tardeel ndax xamoo ndax mu nekk sa dernière julli boo déggatee asalaatu xayru min annaw mi yeewul ndax xamuloo mooy sa dernière tëdd bul xëyee di jàngoo alquran ndax xamoo ndax mooy sa dernière jàng bul xëyee ti dafoo say azkar ndax xamoo mooy sa dernière azkar tudd yàlla tabaraka wa taala bul xeeba ci lu baax soo xëyee saraxeel ndax xamoo mu nekk sa mujjantaru sarax soo xëyee del dox lu baax ndax xamoo mujj ko nekk dee ko wax dee ko def amaana boo ci saxee ëllëg yowmal qiyam booy dee dajeeg yàlla nga dee nga am mujj gu rafet اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسالك حسن الخاتمه يا رب ارزقنا حسن الخاتمه yow yàlla noo ngi lay ñaan yàlla nag ñu may mujj bu rafet yow yàlla yàlla nga dëgëral sunu xol yi ci jaamu yàlla yow yàlla xeet wi yàlla na nga leen dëpp ñu del si ci say loxo yow yàlla jaamu yàlla yi yàlla nga leen xiirtal ci ñu mën laa topp mën laa jaamu alhamdulillahi alladi faddalana ala nicmati alislam alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qumu ila salatikum yarhamukum allah